mbokki internet yi ñoo ngi leen di yow di leen jaajëfal di leen wax ni rek dal leen ak jàmm fii seen chaîne youtube seen acti nag dañuy daal di ñëw ak yéen ci gën a ci xibaar yi ak inauguration bi amoon foofee ci jam ñaajo nga xam ni ci teewaayu président de la république bu Sénégal di Macky Sall lañ ko amal ak ñenn sax fi ci autorité bi lépp inauguration nag kenn rek moo ko sabab mu di Youssou Ndour gannaaw nag bu mu ubbee entreprise dee ko impact group di ab entreprise bu war a yëngu ci lépp luy wàllum imprimerie ci domaine yooyu noonu moom nag di Youssou Ndour démb def na ab discours ba ni sax ci projet bii nii dina tax sax mu jariñ li nga xam ne moo di ab réewam moom nag Youssou Ndour nag xam na ni dina employé si tolloog 2000 jeunes fii ci réew Sénégal dañuy ñëwaat léegi ci jongante bi nga xam ne doxoon na ci diggante Égypte ak Sénégal am nag ab journaliste égyptien bu nekk foofu ca Bein Sport dafa craqué rek wane carrément li nga xam ni moo di agasement am ginnaaw nag ba Sénégal amata encore ndam ci kaw Égypte ginnaaw beach soccer bu ñuy amal moom nag li ko metti mooy atum ren li Sénégal daje ak Égypte dafa bëri loolu ci jongante yooyu noonu nag benn rek la ki nga xam ne moo di Égypte la jël ndam suñu kaw muy final euh, basket Afrique si des nag di football di handball euh, di beach soccer yi ñu tasante ñoom rek nga xam ne moo di équipe bu Sénégal moo gàddu bi lépp ndam dañuy delluwaat foofee ca France affaire Kabirou Mbodj ginnaaw nag ba ko ñetti xale jigéen fekkee ci ab appartement am giñ ko lii du viol ba ki nga xam ne nag moo di Kabir boo fi mu tollu tembe day yëg ak wàcc foofee ca wàllub yoon ca réew po France moom nag di Kabir Mbodj tey rek taxaw na daal di porter plainte ne nag li ni mel nag complot la moom nag procès bu mu mujjee génn xamal na rek que violé wul ñetti xale jigéen yooyu noonu porté ko plainte naan daf ko violé moom nag jot nañu sax xamal li am na la xewee moom moom di Kabir Mbodj nee na jigéen yooyu ñoo ko benn ñu commencé di ko yuuxu ngir rek daal di simmeeku di def seen bopp naka su dul noonu ngir rek mu yuuxu ñu def yàlla moom nag li mu xamle rek mooy li ni mel deful yëgul tinul te complot la te loolu rek la bëgg ki nga xam ne moo di yoon foofee ca France mu ante li nga xam ne moo di dëkk ba tax na moom moo moomee di Kabir Mbodj porté na plainte contre complot njuuj njaaj amati na fii ci réewu Sénégal mais bi nag dafa dox ci diggante ñaari gendarme ñaari gendarme yi leen nag ñoom dañ doon yëngu ci wàllub trafic ci li nga xam ni moo di passeport diplomatique ñoom nag dañ doon euh, def li xam ni moo di wàll bi njub njaac ba tax na nag police tegoon na leen loxo ba fi mu tollu tembe te rek la ñu amaloon procès ba ñu defee procès moom ñaar ñaari gendarmerie nag dañu taxaw fu ñu taxaw ne li ñu def ñoom daal liñ leen di giñ defuñu ko ñoom ci jub ak liggéey comme ni ko ma di defee la nekkee ba tax na nag ñeen ñi sax ñu ngi naan ñaari gendarmerie yi ñu ngi risqué li nga xam ni daal bëri na trop ba tax na nag bi lépp procès aj nañ ko ba ñaar fukki fan ak juróom ci weer bu ñu dëgmal dañuy dem foofee ca région bu jur Diourbel rawatina foofee ca Mbacke Mbacke nag ab Baay Faal ay sambkat rek daal di rey li ni mel nag foofu la xewee ca Mbacke ñi nag di mbokk Baay Faal yi dañ ko giiñ ñoo ñee nga xam ne ñoo di sàmmkat ki ba tax na sàmmkat yi ndekk foofee ca Mbacke dañoo woo rek nga xam ni moo di nguur gi ngir rek mu taxaw ndax ñoom nee na li leen di giiñ defuñu ko dañuy dellu jël li nga xam ni moo di ab procès bu doxoon ci diggante ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moo di Adji Sarr ginnaaw rek ba kii di Adji Sarr gi ñeenee kii di leaderu Pastef bi moo di Ousmane Sonko daf ko daal di violé moom mais nag di Ousmane Sonko taxaw wedd rek ne viol boobee amul tax na nag ki nga xam ni moo di patron nekkoon fi patron Adji Sarr doon wuyoo si turu Ndeye Khady Ndiaye moo def ab live foofee sa TikTok di xam ne ne rek procès Adji Sarr ak Sonko bis bu ñu ko amalaatee fii ci Sénégal dina am ñoo xamante ne dinañ leen xaru li ni mel nag foofu la ko waxee ci TikTok ab live nag bu mu amaloon ndiki démb dañuy dellu sur le plan international ginnaaw ba nga xam ne kii di secrétaire bu Amnesty moo décerné maanaam jox Sénégal note bu bon jëmale ko ci droit civique droit civique nag boo ko déggee mooy comportement boo xam te ni képp ku nekk citoyen fii ci Sénégal moom la amee moom nag nekk secrétaire général bu. Amnesty nag dafa joxe bu léeb not bu bon ndax Sénégal li fi nekk kenn xamul lan la dafa am ay flagrant délit dañuy dégg ay wàllub trafic euh, organe wàllub rey nit wàllub tamit viole mu nekk loo xamante ni tout le temps tout le temps rek dañ koy nemmeeku fi ci réewu Sénégal boo tax na nag directeur secrétaire général bu Amnesty euh, ginnaaw nag ab QG bu ñu amaloon jël na not boo xamante ni daal yéeme na trop jox ko li nga xam ne moo di réewub Sénégal li ni mel nag jàmbat la ci réewub Sénégal jàmbat la nag état wu Sénégal rawatina nag ñu yor wàllub yoon ngir rek ñu xool nan la ñuy def ba li ni mel saafaraal ndax li ni rek rafetul ci Sénégal rafetul tamit ci li nga xam ni moom la Sénégal war a entreprendre affaire escroquerie foofee nga xam ni ab ndaw su jigéen du wuyoo ci turu yasin mbay moom naan nag da daan falal di dem ci li nga xam ne moo di tribunal bu Saint-Louis euh, bu dara amee maanaam bu procès amee wala genre ñu war a ay décision moom nag nekk di gëm loo ni nag ñi nga xam ne ñoo être appelé à la barre ñu waroon taxaw rek ñoom moom dafa am ay collaboration ak ñi nga xam ne ñoo di magistrat yi ak greffe yi ñu ne mel nag dañ ko daan compal ab xaalis ngir rek mu gëmloo leen ni dina mën a génne ñi nga xam ni ñooñu la ñuy waaj dugal kaso ba tax na nag naka noonu la ko ab magistrat daal di remarqué nag topp ko ba mu sës ba mu ko toppee nag si la ko dénoncé woo police police dem jëli ko fi mu tollu temme mu ngi ci loxol yoon mbokki internetu seen seen Actu TV tey nag li lañ leen indiloon ci di gën a fës ci xibaar yi di daje ëllëg waaye laata loolu woy leen di abonné te bu leen fàtte di appuyé wu ci cloche de notification pour di mën a am suñu ay vidéo à la prochaine ci yeneen rubrique fii seen chaîne yu seen Actu TV